émission bi di célébrité et religion ñu daan ko amal ci télévision Futurs média daal nañ koy suspendre gannaaw décision boobule ñeel kii di Yaa Awa Dieye nekk ab animatrice moom Yaa Awa Dieye daal dinay bind si page Facebook am ngir dakkal rumeur yi li mu ca wax mooy rekk ni émission célébrité et religion gi ñu indiwaat ci procuration bu légitime la ko jotee waaye li ko bett mooy la ñu koy tuumaal ak sos yi ñu koy sosal di ko saaga ba émission bi tàmbalee ba tey Euh, la mu ca tekk mooy rek ni jëlee na ci ab jàngat waaye itam du nangu benn yoon ñuy yàq deram ak di ko ŋaññ si ngëm-ngëmam ak lu dul jikkoom ndax ñàkk déggoo gi sax mënoon nañ ko gérer waaye saaga yi mënoon naa ñàkk ak ñi nga xamante ne euh, daanaka ay mercenaires lañu ci di ko yàqal rek la ñu dëkk euh, la muy jeexale mooy rek ne li gënoon mooy mu dakkal collaboration wam ci biir émission bi ngir mu mën a leeral ak xayma tëral yi nga xamante ne dina méngook seen doxalin